asiru malarayi nasiru wasanadani munakasiru jërë ngeen jëf mbokk yi salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu tey nag kon tey la altine juróom-ñeenti fan ci weeru janvier ci atum 2012 ñi nga xam ni kon ñooy murid yi rawatina julli ci biir Sénégal ak fu mu mën a ne ci biir àdduna ah, di waajal li nga xam ne mooy màggalu Serigne Touba màggalu Serigne nag xam ngeen ni day mandargaal bis bi nga xamee ni ah, Serigne Touba bawoo na fii ci biir Sénégal dem fale ca Gabon ci nattuwa loolee nag mu ci sant boromam di sàkku ci ñi nga xam ni kon ñoo gëm yàlla te it ànd ak moom di ko santle ki nga xam ne moom mooy boromam comité d'organisation bu màggalu Touba nag fas yéene ànd ak yéen ci ay xibaar saa su nee fii li fi xew ci biir Touba ak li ko wër di leen dëgtal xibaar yooyu muy journal officiel bi di leen fàttali ni comité d'organisation bi dafa taxawal benn équipe bu am solo ngir fexe lépp lu xam ne xibaar la mu jottali leen ko loolee nag di ngeen ko mën a am ci 3w euh, point magal tiire tuuba Euh, org euh, dañuy daal di door ci li nga xam ne kon moo gën a fës xibaar yi ah, bokk na ci Serigne Sidi Mokhtar Mbacké xalif général de Mourides yëkkati ay kaddu euh, di fàttali ñi nga xam ne kon ñooy jullit yi 18 safar xam ngeen ni kon édition 2012 bi mooy téeméer ak fukk ak juróom-ñaareel bi yoon ñu koy amal muy màggal gu nga xam ne kon Serigne Touba da koy amal saa su ne di leen fàttali ne day dëppook 1433 de l'hégire Serigne Sidi Mokhtar Mbacké kon yëkkati ay kaddu di woo képp nga xam ne jullit nga mu ñëw ci Touba daal di sant Serigne Touba boromam di ngeen déglu kaddu kàddum yooyee euh, ci biir xibaar yi bu nu ci jógee Serigne euh, Bassirou Abdoul Khadr Mbacké moom mi nga xam ne moo yore euh, kàddu Serigne Sidi Mokhtar Mbacké doon dalal ay gan bokk na ci ñooñee Omar Sarr moom nag daal dina fàttali ne Serigne Touba màggalam gii moom ci jëmee boppam ak ñi nga xam ne moo la koy àndal di taalibe mën nañ ko fexe ba mu mucc ayib waaye nag seetlu na ne ñenn ci ay kilifa mel na ni kon di ay jëwriñ rax ci dolli di ay chef de service mel nañ dañu xaw a négligent tuuti euh, ci màggalu Serigne Touba yi ba tax na kon yëkkat na kaddu di leen soññaat moom nag daal dinay rafetlu bu baax a baax jëf yi nga xam ni moom président Abdoulaye Wade def na ko di leen déglu Serigne Bassirou Abdoul Khadr Mbacké euh, ci biir xibaar yi euh, bu ñu ci jógee moom Omar moom mi nga xam ne moo gàlloo li jëm ci mbirum ndox mi te président Abdoulaye Wade yabaloon ko fii ci tubaa nee na li nga xam ne moo jëm ci wàllum forage te nekk ci biir tubaa toll ci ñaar fukk fexe na ba li jëm ci wàllum eau de javel def nañ ko ba mu mat ci sëkk wàllum chlorure tamit ñu ngi sàmmonteeg moom ba tax na kon jàpp na ne euh, ñi nga xam ne ñoo ñëw fii ci Touba dëkk fii te wala bokk na ñëw ci màggal gi di leen mën a jëfandikoo ndox mi euh, ci anam yu mucc ayib danañ ko bàyyi xel euh, ci biir xibaar yi fekk na comité d'organisation organisation bi lëkkaloog waaye bu tax ya di amal jamono ji may waxe yéen benn exposition exposition bi nag bokk na ci luñ fay fësal euh, jaar-jaari Serigne Touba ay portale ak it li nga xam ne moom Serigne Touba seq na ko tubaab bi di leen dem waxtaan ci ku mel ni Serigne Mourtala Sey waaye nag laata loolee xam ngeen ni demoon nañ fale ca Ndakaaru ci hôtel Méridien ci bonne colloque international bu am solo euh, jëm ci wàllum tasawuf lu toll ci juróom fukki euh, borom xam-xam teewoon foofe loolee yëpp dañ ci dikkaat mbokk yi kon lii bu ñu ci jógee dana ci toftal sunu ganu xibaar Serigne Bassirou Abdoul Khadr Mbacké lay doon salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. jërë ngeen jëf mbokk yi dal leen jàmm ci xibaar yi nga xam ne moom la ñu tuddee journal officiel bu màggal bu Touba te comité d'organisation di leen ko amal dañ koy dooree ci. Euh, discours bi nga xam ne Serigne Sidi Mokhtar Mbacké yàlla na fi yàgg lool te wër def na ko euh, li nga xam ne kon moom moo jëm ci wàllu màggal gi di fàttali solo si di fàttali li nga xam ne moom Serigne Touba namm na ko ci màggal gi te it di yëgal ñi nga xam ne ñooy murid yi ak jullit yi ne bis bi kenn ku ne si ñoom war na ko sàlloo dañuy bàyyi Serigne Sidi Mokhtar Mbacké mu in mu dikk ak ñun ci li nga xam ne kon mooy discours bi nga xam ne moom def na ko te magam bu baax ba doon ko def Serigne Bara Mbacké way juróom ya doon ko def saa su ne bu xam ne doonoon dëggal magal euh, kàddu yooyu Serigne Bassirou Abdoul Khadr Mbacké moo ko jottali. asalaamaaleykum. sëriñ bi ne yéen bokki jullit yi. seen mbokk. seen mbokk. seen mbokkum jullit. seen mbokkum jullit. seen mbokkum taalibe. seen mbokkum taalibe. moo leen di fàttali. moo leen di fàttali. ñi fi jiitu woon lañ daa def. ñi fi jiitu woon lañ daa def. ñu ngi koy fàttali. nee na mi ngi leen koy fàttali. ñi ko sëriñ bi digle woon. ci ñi ko sëriñ bi digle woon. muy bisam bu màgg bii nga xam muy bisam bu màgg bii nga xam ne. am lépp. li am lépp. ci bis bi la ko sax borom defale. ci bis bi la ko son borom kon loolu lañ leen di fàttali. nee kon loolu lañ leen di fàttali. muy màggal gii. muy màggal gii. di fukki fan ak juróom-ñett. di fukki fan ak ñett ci safar. ci safar. bi ko ci tukki bi. bi ko ci tukki bi. wàcc diggante. wàcc diggante. waalo ak ganjul. waalo ak ganjul. ak fuuta. ak fuuta. xam wàccoon. xam wàccoon. di ndar. di ndar. jóge fa. jóge fa. jaar biir njàmbur. jaar biir njàmbur. dugg kajoor. dugg kajoor. dugg bawal. dugg bawal. ba agsi ci këram gi nga xam ne. ba si ci këram gi nga xam ne. ci la njëkk amee kër ci kaw ci kaw suuf. ci la njëkk amee kër ci kaw suuf. wàcc fa. wàcc fa. fekk fa rakkam ju tedd ja. fekk fa rakkam ju tedd ja. muy Cheikh Anta. muy Cheikh Anta maam Cheikh Anta. mu ganale ko fa. mu ganale ko fa. ba ngan ngay bëgg a jeex. ba ngan ngay bëgg a jeex. mu wóolu sëñ Ibra Faati ba mu dikk. mu wóolu Cheikh Ibra Faati ba mu ñëw. mu ne ko. mu ne ko. dama bëgg dama bëgg ngeen sant ngeen santale ma suñu borom ndax lott na ci lott na ci santal ko sama bopp ngeen santale ma suñu borom ndax lott na ci santal ko sama bopp kon nak neena kon nak fu fi nekk fu fi nekk di kilifa di kilifa bu bis bi dikkee bu bis bi dikkee nang ko magal nang ko magal nang ko bégal nang ko sey njabot sey njabot defa nga nekk sa kër defa nga nekk sa kër nga doy ko sa njaboot. nga bëggal sa njaboot. ngeen ngeen jàppale ma ko ci li ma sant santale ma ko sëriñ santale ko sunu borom. ngeen jàppale ma ko ko sunu borom. santale ma ko sunu ko suñu borom. ndax lépp lu ma am rek. ndax lépp lu ma am rek. ci bis boobu laa ko lu ma ko sama borom joxe. ci bis boobu la ma ko suñu borom joxe. kon nag. nee na kon nag. digal naa leen. digal naa leen. ngeen ngeen jàppale ma ci. ngeen jàppale ma ci. te bëggal seenu njaboot. te bëggal seenu njaboot. da ci tàmbalee ci ganaar da ci tàmbalee ci ganaar ba ci gëleem sax ba ci gëleem sax lu ci waay am rek na ma ko defal ci bis boobu lu ci waay am rek na ma ko defal ci bis boobu te xam ne bis boobu te xam bis boobu lépp lu ma am rek lépp lu ma am rek ci bis boobu la bàyyi ko ci bis boobu la bàyyi ko kon nag kon nag dox naa leen ndigal jox naa leen ndigal ngeen def ko ngeen def ko te nee na ñuy dox ba yàgg ñuy dox ba yàgg taalibe yi seenu xir taalibe yi seenu xir ñu tëdd ko tabaskiwaat ñu tëdd ko tabaskiwaat moo woo leen ne leen bu mu ko déggee. mu woo leen ne leen bi mu ko déggee. mu leen leen noonu bu leen ko waxee ndax tey loolu day nuru bidaa. mu wax leen loolu bu leen ko wax ndax loolu day nuru bidaa. na ngeen ko tuddee. na ngeen ko tuddee. ak màggal rek. ak màggal rek. waaw nañ ko rek. nañ ko tuddee ak màggal rek. loolu amee. bu loolu amee. daa ko doxalee noonee. ñu daa ko doxalee noonu. dañ ko daa yaral ay xar. ñu ko daa yaral ay xar. daa koy lu ci waay am tënk xam tolloo nga ak moom moom da nga ko daa yaral. lu ci waay yor taxam ne tolloo nga moom da nga ko koy da nga ko koy yaral. da nga ko da nga ko da nga ko yaral ngir bis ngir bis boobu. ngir bis boobu. ñuy dem a dem ba yàgg. ñuy dem a dem ba yàgg. bu Cheikh Fall bu Sëñ Fallu toogee. bu Sëriñ Fallu toogee. ci ak baaxam. ci ak baaxam. ci ak bëggam lu baax. ci ak bëggam lu baax. mu ne nañ ko indil ci dëkkam bii. mu ne nañ ko ko indil ci dëkkam bii. nga xam ne nga xam ne. fi la amee lépp. fi la amee lépp. fi la amee lépp. fi la amee lépp. bu ko defee. bu ko defee noonu mu ko digaloon taalibe yi. noonu mu ko digaloon taalibe yi. mu digal ko jullit yëpp. mu digal ko jullit yëpp. ñu jàppale ko ci. ñu jàppale ko ci ñu daje fii. ñu daje fii. defal ko ko. defal ko ko. màggale màggale ko ko. màggale ko ko waaw. yaatale ko noonu. ko noonu. ak njàngum alxuraan bi. neen ak njàngum alxuraan bi. waaw lu ci waay mën ci def ci waay mën ci def ko. def ko nga def ko. dolli ko nag. neen li ci dolli ko nag. ñu sant bu baax. ñu ngi sant bu baax. kilifa yi nga xam ne. kilifa yi nga xam ne. ñu ñuy jàppale ci liggéey bi. ñu ñuy jàppale ci liggéey bi. def seen loxo ci dëkk bi. def seen loxo ci dëkk bi. dinañ leen sant bu baax. nee na ñu ngi leen sant bu baax. di leen gërëm bu baax. di bu baax. ñu ci dolli moo di rek fàttali leen rek. liñ ci dolli mooy fàttali leen. asaka yi ngeen génne ko ko asaka yi ngeen génne ko. ndax toll nañ ci jamonoom. ndax toll nañ ci jamonoom. toll nañ ci waxtoom. toll nañ ci waxtoom. kon nag ngeen génne ko. kon nag ngeen génne ko. liggéey sëriñ bi ñu sumb itam. liggéey sëriñ bi ñu sumb itam. muy ci dëkk bi. muy ci dëkk bi. muy ca Ndakaaru gee. muy ca Ndakaaru gee. noonu ci fàttali. nee nañ leen ci fàttali. te xam ne tàmbali nañ ko. te xam ne tàmbali nañ ko. lu ci waay man rek. lu ci waay man rek. na ko ci def. na ko ci def. na ko ci def. na ko ci def. loolu mooy ndigal li. loolu mooy ndigal li. ñu lott nag sant ni ko sëriñ bi waxee woon rek. nee na ci bopp. nee na lott na ci boppam. kon nag ñëpp dimbali ko. santal ma sunu borom. santal ko yàlla sunu borom. ak sëriñ Touba mi nga xam ne. santal ko mi nga xam ne. jëmmam jëlañ fab sa jëmm ji. jëmmam jëlañ fab sol ko ci jëmmam ji. dara yéen a jëf. jërë ñaanal. di leen ñaanal. ñu fekk ko dara ñu fekk ko déwén. ñu fekk ko déwén. ak déwénaati déwén. ak déwénaati déwén. jërë ngeen a jëf. jërë ngeen jëf jërë ngeen a jëf. Serigne Bassirou Abdoul Khadr Mbacke moomee sax la ñuy desandi moom mi nga xam ne mooy porte parole Euh, yoonu Serigne Touba mooy porte-parole Serigne Sidi Mokhtar Mbacke xalif général des Mourides moom na xam ngeen ni euh, bis bu yàlla sàkk mi ngi dalal ñi nga xam ne ñooy gan yi bawoo ci nguur gi bawoo ci euh, parti politique yi moom nag ci dajal gi nga xam ne doon na ko dajeek ki nga xam ne mooy Omar Sarr di ministre de l'hydraulique moom Serigne Bassirou Abdoul Khadr Mbacke yëkkati na fay kaddu nee na donte président Abdoulaye Wade mi ngi def kéemtalaay kattanam ngir màggal gi mu ci ayib waaye nag dafa mel ni ñenn ci ay jëwriñ rawati ay chef de service dañu xaw a négligent wala sax nag nu foofu mel ni dañuy xaw a saboté li jëm ci wàggalu Serigne Touba gi te lee loole loo nee na ay pexe yu mën mënta wéy la ba tax na kon moom Serigne Bassirou Abdoul Khadr Mbacké indi na ci ay leeral nu bàyyi ko xel waaye danañ ci tudd sëriñ Moustapha Fall euh, ndax li ngeen àndee ci ñaari anam ak li mu doon ci dëkk bi doon ko ci kër gi ak ñi ci des ñëpp nag bàyyiwul kenn wax ji sax daanaka li ci waroon wax lépp sëriñ Cheikh Thioro wax na waxal na ma ko te bu ma amul naa illaa waaxidatun kalamhin bil basar lenn rek lañ kon bu kon rek jaruma ci delsiwaat li mu wax ci màggal gi lépp jaru dellu siwaat kon ñu ngi lay kon nuyu bu baax te di rafetlu kàddu yi nga fi yëkkati tam ci turu sëriñ bi ak engagement yi nga xam ne jég ngeen ko ci di ko rafetlu bu baax di nuyu itam ci turu sëriñ bi président de la république maître Abdoulaye wad mom mi nga xam ne mooy seen kilifa te sante len ñen taxaw liggéey bi ci ndigalam kon ñi lay delu am nuyu bu baax di sante itam ci unité yoy nga wax ne indi ko ci dëkk bi président may ko waa Touba. président bëgg Touba am ndox mu sell. bëgg Touba kon nag loolu. kon loolu. Touba moom. li ma ci wax ci loolu gàtt lay doon. ci wax ci loolu gàtt lay doon. ndax Serigne Touba. ndax Serigne Touba. nekk na ci njaareem. nekk na ci njaareem. booba dëkk bi manqué nam ndox lool. booba dëkk bi manqué nam ndox lool. teen sax amu fi daanaka. teen sax amu fi daanaka. yaakaar naa mas nañoo dégg mu di ko wax. borom nga di ko ko ñam ngir bëgg ci naan bëgg naanum ndox mu ne duma la ko mën may lépp ndax dama ci wugg sama jur kon tuuba ñàkkoon ndox lool moom koo xam dafa bàyyi ko woon tuuba ñëw njaareem fekk fa sëriñ bi sëriñ bi dafa bëggoon dëkk bi lool ba ko fa bàyyi ko bàyyi ko balaa wax ak kenn balaa wax ak kenn day wax ak yow bu ne ba mu dikkee sëriñ bi ne ko yow mi bàyyi ko ci sama dëkk bu sell ba nu dëkk ba def mu ne ko ah, Mbàkke ñëpp a sant waaye xanaa ñàkkum ndox loolu rek ah, sëñ bi nag loolu dox na diir bu gàtt ndox ma dana fa sotti ko kooka def ko ku desee xam waxin. kooka dem ku desee xam waxin. ne ko ah loolu de mbàkke xanaa ku gudd fan ko fekkee. mu de mbàkke xanaa ku gudd fan ko fekkee. sëñ bi sëñ bi nag ku gàtt fan du fekkee dara. sëñ bi nag ku gàtt fan du fekkee dara. mu teg ci ay fan yu néew. mu teg ci ay fan yu néew. faatu. daal di faatu. kon Serigne Touba. kon Serigne Touba. lépp rek. loo am ci dëkk bi. loo am ci dëkk bi. jaare ci nit rek. jaare ci waris na ko caa sant. waris na ko caa sant ndax moo doxalee noonu àdduna. ndax waaye lépp ñaanoon na ko suñu borom ba may ko te dara mënu koo tee agsi képp ku bëgg a gàllankoor loola yaa fay jóge waaye loolu moom du fa jóge nga xam ne ko suñu borom may la borom Omar Sarr moom mooy ki nga xam ne moo yore mbirum ndox mi nguur gi yabaloon ko fii président Abdoulaye Wade yabaloon ko fii mu ñëw indi ay tegtal yu nga xam ni kon namm na koo jël wala mu noppee koo jël ngir fexe ba jëfandiku ndox mi ci biir Touba ak li ko wër mucc ay moom Omar Sarr nee na li jëm ci waaru koloor bi fexe na ba mu ndar képp daal di daj ci bépp forage bu nekk ci dëkk bi mu toll ci ñaar fukki forage waaye nee na li nga xam ne moo jëm ci wàllum eau de javel fexe na ba mucc ay kàddu yooyu nga xam ni kon Serigne Bassirou Abdoul Khadre yëkkati na ko nee na mi ngi soññ ñi nga xam ne ñoom la wax joojee jublu nu fexe ba sàmm sàmmonteeg kaddu yoyé té lolé bu mu leen dalal ci benn yoon ñu déglu ministre Omar Sarr. waaw kon euh comme euh, si diwaan Touba euh je pense que tay ñëw nañu pour xol situation euh, préparation magal bi. euh chaque fois nous koy def avant sax ñuy xool euh, un mois avant magal bi ñëw mais bien ñu ñëw une semaine avant parce que euh, problème forage yu bare réglé nañu ko depuis plus d'un an so xolé 19 forage yëpp tey ñëpp ñongi fonctionner amul benn bu nek panne

donc je pense que vraiment euh, si euh, préparation magalbi warul am problème ndox si bir Touba hein donc lolu disposition yooyu lu nu nous euh, nous président waxoon ñu ñu jël ko jël ko je pense que légui tout va rentrer donc je pense enfin il y aura pas de problème majeur en tout cas si bir préparation bi donc lolu mo gëna am am solo donc la visite naa yenn yi wala yenn yi bon parce que mais ndox bi principalement mon moo waaye commandation citerne yi ñëw na am na camion citerne sax yu plus de 20 camions citerne yu bees nga indi nañu ko spécialement pour Touba bon am na yeneen yi nga xam ne ko loué donc vraiment je pense que avons am problème si euh, si si si màggal ndox bi tamit ñu koy traité ñoo koy traité y a assez de chlore chlore chlore bu bees parce que lu ma wax sànq chlore bu bu bari woon avant parce que yàggoon na depuis le magal, mais qu'elle utilise le chlore bu bu varié ni rien du tout donc waaw aussi euh, euh, présidente mu joxoon instruction ñu jënd ñaari unité de privatisation yu yu yu am solo

et je pense que vraiment si si bi warul am problème maintenant wax yenn si euh, nous wax ni de euh, la ak nan bon mais l'essentiel pour moi lu tax nous moi et je pense que jël une disposition en tout cas si préparation ndox mi jël une disposition pour ma bi exposition solo Euh, Hizbut Tarqiyyah gannaaw ba nga xamee ni kon commune d'organisation bu Magal tubaa ak ki nga xam ne moo jiite comité d'organisation ba di Serigne Bassirou Abdoul Khadr ànd na ceeg ñoom muy exposition bu nga xam ne lan ca nam weesuwul fexe ba ñi nga xam ne euh, des nanoo am ay xam jëm ci Serigne Touba jëm ci yoonam bi ak digganteem ak tubaab bi la ci xew lépp lenn ci ay exposition am na ay leeral yu mu ci indi bax na kon Mourtala Seye moom mi nga xam ne kon moo daanaka euh, jiite loolee nga xam ne kon mooy exposition bi wala mu yore ci pàcc bu am solo indi na ci ci ay leeral. kon jërëjëf. ñoo ngi di sant bu baax ci ñëw gi ngeen ñëw fii ci grande exposition bi nga def si reportage. li nga xam ne moom lañ leen di mën a indil rek mooy ñu xam ne grande exposition sunu mouridisme bi nga xam ne ñu ngi koy amal waxtu wu nekk te daara Hizbut Tarqiyyah di ko amal ren ji mooy ñetteel édition bi. Euh, ren ji nag am na ay innovation yoo xam ne am na ci euh, innovation de taille. ndax su dee édition 2010 ak 2011 yep, dañ ko de façon globale sur les valeurs culturelles de base du mouridisme mu englobé lépp kon ren jii jël ñaari dañ ko valeurs culturelles de base du mouridisme exposition bi ñaari bu la ville sainte de bi l'universalité de la mission de Cheikh Amadou Bamba kon ñaari créé waat nañ benn troisième thème boo xam ne doon na loo xam ne mooy benn euh, rétrospective ci ñaari édition yi nga xam ne moo weesu woon ñu jël ko mu dem kon loolu mooy euh, thématique exposition bi motivation choix yooyu nag dafa mat a xam lool ndax am na solo ndax kenn ku nekk xam na ne Touba c'est une ville religieuse Sëñ Touba moo ko sanc te jaamu yàlla dong dong tax mu sanc ko bàyyi barab bi xumb yëpp ngir sanc ko euh, ngir yar fi dongo yi sori lépp loo xam ne yàq jikko la wala melokaan kon loolu raison fondamentale de la fondation de la ville c'est une ville religieuse. waaw loolu mom euh, visiteurs mom moom xamna ko bu baax Na xamna ne suñu ñëwé suñu défaré barab bu melni, barab barabu échange la barabu discussion la barabu jëriñu la Té loolu so ñëwé da nga gis euh, ñu bari ño xamné ñi ngi yore seen feuille ak seen bic di bind. am ñoo xam ne ñu ngi sàkku ku leen photocopie dara am ñoo xam ne ñu ngi ñëw sàkku ku leen leeral dara et cetera kon day barab boo xam ne barab échange la du barab boo xam ne dañoo tëju. tëjoo amut ma da ngay ñëw ñuy échange ci li nga xam ne moo fi nekk muy wàllu xam-xam kon loolu yaakaar na ne am na solo lool kon ñu ngi gën woo public bi yëpp ñu gën a ñëw visiter exposition bi dana am ay forum dana am ay panel dana am ay conférence ay communication yoo xam ne dañ koy def ñu ngi leen ci invité ay communication spécialisée la sur le domaine du développement de la ville loolu suñ ñëwee yaakaar naa ne dana am solo lool ci li nga xam ne dañ ko découvrir jërëjëf Serigne Mourtala Sey dañuy tàbbi ci li nga xam ne moom moo xewoon fële ca Dakar ci hôtel Méridien di benn euh, colloque bu am solo colloque international du Magal de Touba sur le soufisme euh, ñi nga xam ne kon ñoom ñooy euh, commission communication te Serigne Cheikh Abdou Mbacké ak Serigne Abo jiite ko ak Serigne Jili Mbacké ñoom nag ñoo doon amal foofe colloque bi ànd ci comité d'organisation bi yëpp lañ ci jublu woon weesuwul fexe ba ñi nga xam xam ne ñi nga xam ne seen xam-xam dafa màcc jëm ci mbirum tasawuf ñoom ñëpp ñu daje fii daal di addu ana yan pexe ak yoon la tasawuf nam ma indi ci euh, li nga xam ni mooy jafe-jafe yi euh, gàllankoor euh, doomu aadama yi ci biir àdduna mu nekkoon jotaay bu am solo gis ngeen ko nii ci image yi daanaka kilifa yu bëree bëri bawoo fii ci Sénégal bawoo fi nga xam ne kon mooy bitim réew ay Syrie Égypte Maroc ak fépp fu nga xam ne rek borom xam-xam nekkoon na fa rawati sax fale ci Europe ñoom ñëpp ñëw na nañu teew waxtaan ay waxtaan yu yaatoo yaatu ci wàllum tasawuf waxtaan it li jëm ci yoonu Serigne tubaa ak li nga xam ne namm na ko ci jaam yi ba tax na kon gis ngeen bu nu fa jógee nag euh, fi nga xam ne mooy Ndakaaru ñëw nañu fii ci euh, Touba euh, siyaare ki nga xam ni moom mooy Serigne Sidi Mokhtar Mbacké xalif général di Mourides ba tax na kon moom Serigne Sidi Mokhtar dalal na leen waxtaan ak ñoom masawu leen waaye nag jox leen diggal ndigal la weesuwul li nga xam ne jëlee nañ ko foofee ca colloque ba ñu daal koy tënk ci benn këyit daal koy eh, fexe ba mu baawaan saawaan ci biir àdduna ndaxte eh, jotaay yooyu nekkoon nu lu am solo. mbokk yi kon fii la xaaj bu njëkk bi buure eh, ci wàllu xibaar yi dañuy dem delu see génn ci ñaari xaaju xibaar yi. ganu xibaar yi kon Serigne Bassirou Abdoul Khadr Mbacke lay doon moom mi nga xam ne moo yore kàddu Serigne di Mokhtar Mbacke moom mi nga xam ne daanaka ñi ëpp ci kilifa yi bu ñu ñëwee dana leen dalal daal di euh, waxtaan ak ñoom ci li xam ne moo jëm ci marum magal gi moom Serigne Bassirou Abdoul Khadr Mbacke euh, dañ koy bàyyi ci waxtaan bu yaatu bu nga xam ne euh, seq na koog jëriñ ji di Omar Sarr ak taskatu xibaar yi nu bàyyi ko xel moom Serigne Bassirou Abdoul Khadr Mbacke. Cheikh Sidi Mokhtar mi nga xam moo fi jëmmi suñu Tuubaa ci kaw suuf di ñaan suñu borom bàyyi ko fi lu yàgg la tam ànd ak wér moo lay dalal jàmm yaa ngi boolem ñi nga àndal muy délégation bi yëpp waaye danañ ci tudd Serigne Moustapha Fall ndax euh, li ngeen àndee ci ñaari anam. ak li mu doon ci dëkk bi ak li mu doon ci dëkk bi doon ko ci kër gi doon ko ci kër gi ak ñi ci des ñëpp ak ñi ci des ñëpp bàyyiwul kenn bàyyiwul kenn wax ji sax nee na wax ji sax daanaka li ma ci waroon wax lépp daanaka li mu ci waroon wax sëriñ Cheikh Thioro sëriñ Cheikh Thioro wax na waxal na ma ko waxal na ko ko te wama amruna illa waxidatun kalamhin bil basar lenn rek lañ lenn rek lañ kon bu waxee rek jaruma ci delsiwaat kon bu waxee rek jaruma li wax ci màggal gi lépp. li wax ci màggal gi lépp. jarul dellu si waat. jarul dellu si kon ñu ngi lay delloo nuyu bu baax. delloo nuyu te di rafetlu kàddu yi nga fi yëkkati tam. rafetlu kàddu yi nga fi yëkkati. ci turu sëriñ bi. ci turu sëriñ bi. ak eh, engagement yi nga xam ne. ak engagement yi nga ko lépp ci màggal yi jéeg ngeen ko lépp ci màggal gi. di ko rafetlu bu ko rafetlu bu baax a baax. di nuyu itam. di ci turu sëriñ bi. ci turu bi. président de la république. maître Abdoulaye Wade moom mi nga xam ne mooy seen kilifa te sant leen ngeen taxawu liggéey bi ci ndigalam kon ñu ngi lay delloo am nuyu bu baax di sant itam ci unité yooyu nga wax ne indi ko ci dëkk bi président may ko waa ngir bëgg Touba am ndox mu sell kon nag loolu Touba mom li ma ci wax ci loolu gàtt lay do ndax Serigne Touba nek na ci njaareem bo dekk bi manqué nam ndox lool euh, ten sax amu fi danaka yak na ma nañoo dig Cheikh Abdoulaye mbake mu di mbake mu dorom sebit nga nga di ko diko ñaan ngir bëgg caa naan bëgg naanum ndox. ngir bëgg caa naanum na mu ne du ma la ko mën a may lépp ndax dama ci wugg sama jur. mu ne a may kon Touba ñàkkoon na ndox lool. Touba ñàkkoon koo xam ne dafa bàyyi ko woon Touba. moom koo xam ne dafa fekk fa sëriñ bi. fekk fa sëriñ bi. sëriñ dafa bëggoon dëkk bi lool. sëriñ bi dafa bëggoon dëkk bi lool. ba ku fa bàyyi balaa wax ak kenn. balaa wax ak kenn. day wax ak yow ba mu dikkee sëriñ bi na ko yow mi bàyyi ko ci sama dëkk bu sell ba. yow mi bàyyi sama dëkk bu sell ba. nu dëkk ba def. nu dëkk ba def. ma ne ko ah, Mbàkke ñëpp sant waaye xanaa ñàkkum ndox loolu rek. ma ne ko ah, Mbàkke ñëpp sant waaye xanaa ñàkkum ndox loolu. sëñ bi nag loolu bu gàtt. mu ne loolu ko loolu de bu gàtt. ndox ma dana fa sotti ko. ndox ma dana ko. ne def ko desee xam waxin. xam ne daan ko desee xam waxin. ne ko ah loolu de Mbàkke xanaa ku gudd fan loolu du ko fekkee. mu ne ko ko fekkee. sëñ bi nag sëñ bi nag gàtt fan bu fekkee dara. sëñ bi nag ku gàtt fan bu fekkee dara. mu teg ci ay fan yu néew. mu teg ci ay fan yu néew. faatu. daal di faatu. kon Serigne Touba. kon Serigne Touba. lépp rek. lépp loo am ci dëkk bi. loo am ci dëkk bi. jaare ci nit rek. jaare ci nit rek. waris na ko caa sant. waris na suñu borom moo doxalee noonu àdduna. ndax suñu borom moo waaye lépp ñaanoon na ko suñu borom. na ko suñu borom. ba may ko. ba may ko te dara mënu koo tee accès. te dara mënu koo tee képp ku bëgg a gàllankoor loola. képp ku bëgg a gàllankoor loola. yaa fay jóge waaye loolu moom du fa jóge. yaa fay jóge waaye loolu du fa jóge. nga xam ne ko suñu borom may la borom. moo tax. maa ngi lay wax léegi ci biir waxtaan. mi ngi lay wax léegi ci biir waxtaan. ngir bëgg rek. ngir bëgg rek. ndax ay nit moom bu ñu nekkee. ay nit bu ñu nekkee. di waxante dëgg da caa baax. di waxante dëgg da caa baax. waxante dëgg nag mooy. waxante dëgg mooy. nit bu la defalee lu baax. nit bu la defalee lu baax. nga sant ko ba ñëpp dégg ko. سرين توبا دا وخون وحيثما احسنت الانسان اليك فاحمده بلا تواني وقت ونيت جيمي اك رافتال تي يو انا يعني وقت ونيت جيمي اك رافتال تي يو نانكو سانت با نيب ديكو نانكو سانت با نيب ديكو واي نك امنا سي لو خامني واي نك امنا سي لو خامني خاوما نيغليس نيغليسانس لنجكو مانا تودي خاوما نيغليسانس لنجكو مانا تودي ولا اي سابوتاج سي بير ولا اي سابوتاج سي بير muy loo xam ne moom am na ci liggéey bi. muy loo xam ne am na ci liggéey bi. te it mënees ko nëbb nag. te it mënees ko nëbb it. ndax wolof yi dañuy wax ne. ndax wolof yi dañuy wax ne. jàngoro. jàngoro. boo ko nëbbee mu weer la. boo ko nëbbee mu weer la. kon nag président. kon nag président. yéene ji mu am ci Touba. yéene ji mu am ci Touba. ñëpp xam nañ ko. ñëpp xam ne ko. lim ci man lépp def na ko. lim ci man lépp def na ko. waaye nag yéen ñi ay jëwriñam. wante yéen ñi nga xam ne yéen ay jëwriñam. ak ñi topp ci seen suuf. ak ñi topp ci seen suuf. ngeen ko ci gën a jàppale. na ngeen ko ci gën a jàppale. ndax nit boo xamee ak bëggam. ndax nit boo xamee ak bëggam. munu caa weesu santaane. munu caa weesu santaane. wante fexe ba la muy santaane di am. wante fexe ba la muy santaane di am. loolu mooy dimbali kilifa bi. loolu mooy dimbali kilifa ndax nit bu ñëwee ci barab taxaw wax. ndax nit ci barab taxaw wax. danaa def nangam. ne danaa def nangam. buñ ko ci dimbaliwul. buñ ko ci dimbaliwul. bu kàddu ga dañee. bu kàddu ga dañee. ñoom ñëpp am na ci responsabilité. ñoom ñëpp am nañ ci responsabilité. kon nag. kon nag. loolu moom faaw ñu leen koy sot fàttali. loolu faaw ñu leen koy fàttali. di leen ko soññ. di leen ko soññ. ndax Touba. ndax Touba. am na ñoo xam ne. am na ñoo xam ne. ko suñ borom def da leen a neexut. ko suñ borom def da leen a neexut. loolu nag képp kum neexut moom. loolu nag képp kum neexut. nopp nga amati jàmm ci àdduna. nopp ndax suñ Touba daa wax ne. ndax suñ Touba dafa wax. xuloobu man lam yuhibbuni ala wajalin wala yulaaxuuna maaraamu wala baaxaan. xolu képp koo xam ne soppuma. xolu ci njàqare lay dëkk. ci na bunt bu mu fëgg itam. bunt bu mu fëgg itam. kenn du ko ubbi. kenn ko kon loolu suñ Tuubaa ko bindee. kon loolu Sëriñ Tuubaa nag lay léeg loolu nag léeg ci biir service yi. ci biir service ak ci biir liggéeykat yi. ak ci biir liggéeykat am ñoo xam ne. da ciy am ñoo xam ne. sag bi nga xam ne. sag bi nga xam ne. suñ borom defal na ko Sëriñ ci dëkkam bii. suñ borom defal na ko Sëriñ Tuubaa ci biir dëkkam bii. da leen a neexut. da leen a neexut. fu ne nag danañ ko feeñal. fu nekk danañ ko fa feeñal. feeñe danañ ko feeñal ci wax. danañ ko feeñal ci wax. danañ ko feeñal ci jëf. danañ ko feeñal am na ci yoo xam ne sax du jar détaillé. am ne du jar détaillé. ndax boo ko détaillé. boo ko détaillé. nit ñi danañ yóbbu wax ji fu mu waaye lu mat a bàyyi xel la. waaye lu mat a bàyyi ndax am na ci ñoo xam ne. ndax am na ci ñoo xam ne. baatu ñuy sukkandiku. baat bi ñuy sukkandiku. mooy Touba dañ dul fay ndox. Touba dañ dul fay ndox. te dañoo war def ne dëkk yëpp. te dañoo war def ne dëkk loolu itam li ma ciy leeral rek. loolu li ma ciy leeral. la ci jiitu. la ci jiitu. mooy nañu xam ne. mooy nañu xam ne. ñàkk fayug ndox Touba. ñàkk fayug ndox Touba. tàmbaliwul ci Abdoulaye Wade. tàmbaliwul ci Abdoulaye Wade. tàmbaliwul ci Abdou Diouf. tàmbaliwul ci Abdou Diouf. tàmbaliwul ci Senghor itam. tàmbaliwul ci Senghor itam. tubaab yi fi lañ ko bàyyi woon. ko bàyyi woon. te jéemuñ ci woon dara. te jéemuñ ci woon kon lu fi yàgg la. kon lu fi yàgg la. nag. teewul nag. xam gi Touba xam li ko war ci réew mi. xam xam li ko war ci moo tax Serigne Saliou Mbacké. moo tax Serigne Saliou Mbacké. radiyallahu taala anhu. sosoon ak kuréel. sosoon ak kuréel. mooy aynu rahmati ah, maa ur rahmati gi Serigne Cheikh Aliou Mbacke bi jiite. mooy maa ur rahmati gi Serigne Cheikh Mbacke Serigne Cheikh Aliou jiite. Serigne Saliou ba mu koy sos. la mu ci jublu la mu ci jublu woon. mooy xam ne. mooy xam ne. nit bu ko dee dimbale itam. tam bu ko dee am na lu ko war a ci lu ko war a la. am na lu ko a di wax naan. li wolof di wax na ci fekk loxol borom. moo tax Serigne seex itam. moo tax Serigne Cheikh tamit. bi fi Cheikh Serigne Saliou Mbacke bàyyi ko. Saliou Mbacke bàyyi ko. sëriñ Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacke yeesal ko. sëriñ Mouhamadou Amine Bara Mbacke yeesal ko. mu di ca góorgóorlu bu baax. di ca góorgóorlu bu baax. lam ca man. lam ca man ak lam ca mënul. ndax jeexal na ci léppam. na ci léppam te loolu nag mu ne su ko weesu. te loolu mu ko weesu. loolu nag kenn ko ko. kenn du ko ko yéeme. loolu nag kenn du ko yéeme. nga daa la mu war a def. daa nekk ca la mu war a def. ndax daa nekk la mu war a def. ndax ndax loolu jihaad ndax loolu jihaad la. sëñ Muntaxa waxoon na ku yàggut. Muntaxa waxoon na ko. ndax lu yomb. ndax doonu lu waaye nag nañu xam ne. waaye nañu xam ne. Touba yaacaar luñu. Touba yaacaar luñu. néewuñu fee it. néewuñu yaakaar ne. yaakaar dañ leen a wóot war a wóotaleeg réew mi yëpp. leen a war a wóotaleeg réew mi waaye nag nañu xam ne cër bi leen yàlla jox kenn mënu leen ko xañ loolu moom dafa mat a leeral ba tax ñu xam ne ña ngi cay góorgóorlu waaye ci ci biir liggéey bi sabotage yu bari da nga ko ci dégg am na ci ñoo xam dañuy dem ba ci biir di wax naan Touba dafa bëgg a remplacer état bi Touba seen yoon néew ci état soxlawuñ ko it nag ndax buñ ko soxla woon buñ ko soxla woon ñi ko yor duñ ko duñ ci jot ñi ko yor duñ ko kon soxla wuñ ko waaw kon soxla wuñ ko ndax sëñ Tuubaa ndax sëñ Tuubaa lu jëm ci nguur lu jëm ci da koo seexlu woon koo seexlu woon te bëgg ko woon. te bëgg ko woon. ñaanoon tam lu bokk ci moom. ñaanoon tamit lu bokk ci moom. suñ borom musal la ca. moo tax soxlawuñ ko. ko bëgguñ ko. bëgguñ ko ndax buñ ko bëggoon ñu ci jot. ndax buñ ko bëggoon kon loolu ay wax la yoo xam ne. loolu ay wax la ay sabotage la yu am ci biir. yoo xam ne ña koy wax. loo xam ne ña koy wax. day am lu leen naqari ci yoon wi. am lu leen yoon wi. te ñu xam te ñu ne nag. te ñu xam ne. naqari ci yoon wi. loolee leen naqari saa suñ xëyee day yokk waaye du wàññi ko. saa suñ xëyee la amoon lu ma ci leeral. ñu ngi sant ñëpp di gërëm jërëjëf mbokk yi kon fii la xibaar yi buuree muy xibaar yi nga xam ne comité d'organisation màggal bu Touba moo fas yéene di ko ànd ak yéen ba tax na kon fas yéene fas nañu yéene fépp fu ngeen xam ne ah, mënu leen fa teg seen tànk ñu tegal leen fa suñuy tànk dégtal leen fa xibaar yi nga xam ne moom moo fa ruusee di fàttali ne comité d'organisation bi di fas yéene ànd ak yéen ci xibaar yi ba màggal gi incha allah jàll ak ci jàmm di leen fàtte ni xibaar yi ma euh, euh, ngeen ko am ci wàllum internet bi ma ngeen ko am ci 3w point magal tiré touba point org euh, di site bu nga xam ne comité d'organisation bi ci boppam moo ko taxawal jërë ngeen jëf salaamaaleykum wa rahmatullah taala wa